ñu dooree xibaar yi ay ak ñiy lab ci géeru ndakaar géeju ndakaaru yi mu ngi gën di euh, bari regroupement d'incendie et de secours des sapeurs pompiers bu zone 1 bu diwaanu ndakaaru euh, di xam ne ni gën kaa néew lu toll ko euh, ñaar ñeent fukki doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci géeju ndakaaru yi ba at mi dooree ak léegi ci lu toll ko juróom fukk yoo xamante ne dañoo lab mu ñu sukkandikoo ci kàddu yu tukkee ci lieutenant colonel Papa Michel Diatta mi sekkoon ab waxtaan ak Younoussa Baldé la mu ci rax dolli di weerub juin bi ñu nekk mu ne gën kaa néew fukki doomu ak juróom ñàkk nañu ci seen bakkan ñoon du ceeg kon Younoussa Baldé ci ndorteel atum 2021 bi ba léegi sapeur pompier yu région de ndakaaru def nañu ay sorties yu bëri soxal cas de yi ci plage yu ndakaaru ak it banlieue bu ndakaaru démb rek am nañu euh, set ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ak euh, six yoo xam ne repêché nañ leen soove nañ leen tey ce matin aussi plongeurs yi maanaam récupéré nañ ñaar ñu ci nag seen bakkan ni xale yi di labe ci géej gi nag te di ñàkk seeni bakkan tàmbali na jéggi dayo bañu sukkandiku ci kaddu lieutenant colonel Pape Ange Michel jaata ci weeru juin bi ñu nekk la sa sapeur pompier yi gën a sonn ñoo gi ci quinze sorties te ci quinze am nañ ci vingt cinq victimes généralement c'est des personne jeunes ay ay ndaw ñoo fay nekk ku gën a tuuti soo gisee ni ci ñu ñu ci corps bi. ba léegi ci kàddu yi mu yëkkati plage yu nekk ci grande côte bi maanaam li ko dalee Parcelles Assainies ba keroog ngay àgg Kër Massar jaaree ko ci Guédiawaye ak Malika nee na plage yooyu nag ñoo gën a dangereuse waral ñuy ñaax askan wi rawatina jeunes yi ñu moytandiku plage. lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta mu ngi sàkku ci ndaw yi ñu bañ a teg seen tànk ci géej gi ñuy tere ku fa sangoo di leen xamal ni li ni mel du lu baax waaye leneen loo xamante ni tam dellu siit na ci moo di bariwaayu lab gi ci jamono ji ñu déglu ko. léegi soo gisee am na yoo xam ne am na ay roche am roche yu nekk foofu am na yoo xam ne la am na yoo xam ne aussi ndox mi nu muy nu muy mouvoir moo xool sax soo amee ku lab tuuti sax. c'est-à-dire que soo traîner tuuti doo fekk corps bi corps bi ndox mi yóbbu na ko pour vous dire en fait euh, doole bu ndox mi am ci secteur boobu ndox mi calme la en fait que les gens loolu rek jox ay conseils plage yi bañaat bi c'est interdit euh, comme c'est interdit ñi mën a yem ci plage rek euh, bañ a dugg ci maire bu commune bu Golf Sud moom tàmbali na cee jël ay euh, mesures Aïda Sow Diawara la mu daal di xamle moo yi kon euh, plage bu euh, mali bu fi mu ne dafay aaye képp ku fa teg tànkam naka noonee muy sàkku ci autorité administrative yi nga xamante ni dina jubali ci ñoom ñu daal di kon taxawal boobu les mesures ñu déglu ko. li ma gis ma tey jii mooy nañ leen tere tefes gi rek tefes boo xam ne daal euh, géej ko waruñ ci sangu tefes ba xale yi waruñ ci dem ndax comme mënu leen tere dem ci ndox bi am na koo xam ne daaw dañ ko doo dugg ci ndox bi mu ne man lébu laa gënu leen naa xam géej donc euh, yombul ci ñi nga xam ne ñun ñoom la ñuy yebal pour ñu tere nit ñi parce que dañuy bañ te mënuñu xeex ñoom donc tey jii di koy faj daal mooy nag ñu tere géej ci pour kenn demati ca géej gi nañ ko tëj niñ ko defee ci euh, bi nga xamee ne mbas mu ngi fi ba nga xam ne kenn demul ci géej gi police di ko garde gendarme yi ñëw ak seeni fas ba kenn demul ci géej ne tey jii pendant période vacances bi dañoo war a tere géej gi di ko surveiller dinaa bind préfet ci kanam wax ko ne ko wax dëgg yàlla ñun dañoo bëgg ñu tëj géej gi kenn bañ ci demati tefes gi kenn bañ ci dem yëf yi metti na trop trop trop xale yi gaañu metti na. mesure yi Abdoulaye Mbow xëy na moom la ñuy xaar. waaw mesure de bu ñu ko jëlee waaye dafay fekk mu ànd ak accompagnement te bu ñu nee accompagnement nag mooy li nga xam ne moo di application mesure yooyu euh, dans toute leur rigueur. parce que itam yàgg nañu fi jël ay mesures yoo xam ne dafay nekk foo de paille gis nga daaw euh, jamono ji nga xam ne lab gi mi ngi doon commencé taqar naa c'est pas asan jëloon nañu ay mesures waaye dafa mel ni euh, ay fan lañu si teg nga gisaat ndaw yi demaat fépp fi nga xam ne dañ fay aaye li nga xam ne moo di sangu fépp fu ñu bindee baignade interdite xadi colonel boo fa demee tulleek mala la dafay fees dell donc on se pose des question jamono ji nag waruñu seetaan ay ndaw yoo xam ne dañoo bokk ci espoir de toute une nation ñu leen di bàyyi dënga maam ñuy dem lab ci biir géej gi donc war nañoo mën a jël ay matuwaay jël ay juntukaay ba nga xam ne xale yooyu daa ñu leen aar parce que au la de la responsabilité parentale nguur gi état gi collectivité territoriale yi dañ ci am rôle bu rëy boo xam ne dañ ko see war a jouer di maître nageur yi fii ci Ndakaaru xam nañu ville bi lu si bari lu mu siy def ak yooyu waaye ba tey doyul nañu gën a forme gën a yaatal ngir mën a gën a sàmm ndaw ñi. mën nañu jël mesure lool paasan waaye application ak mesure d'accompagnement yenn saa yi moom mooy desandi. mooy mooy jafe bi question de suivi maintenant lu tax du ñu suivre moo mooy moo moo jaaxal ñëpp euh, Serigne Saliou vendredi defe naa lañ fi defandoo JT bi on avait deux ou trois cas de noyade mu ma seetaanal dañuy toog ba ba musiba am. ñu door a génnaat c'est ce qu'on est en train de voir c'est-à-dire que on n'anticipe pas et on se dit mais mais lan moo pourtant li muy li ñuy xoolal kilifa bi ñuy déglu léegi nii mu wax li mu wax logique la de xoolal la mairesse de de de de de de Guédiawaye Aïda Sow Diawara sunu yaay boobu ñu ngi kaa nuyu li mu wax dëgg la mais pourquoi on le dit pas avant pourquoi par exemple elle en tant que mairesse maire du jël téléphone am anticiper ne ay waay tëj leen géej gi bala ça lui permettrait toogee ci antenne mu ne waxoon naa leen des choses comme ça mais non la est là follower bàyyi ba affaire bi am ñu et ça d'année en année c'est-à-dire que xamoon nañ ko fa la ñuy fa voilà quoi. Euh, euh, Mansour bu ñu déggee Mbow ak Paasan dafa mel ni ñun suñu gouvernement dañuy wéy ci di réagir waaye duñu agir. <laughs> mais euh, parce que bu ñu nee jël nañu ay mesures te duñu ko respecter parce que ñoom la neex. li ñu bëgg ci ay mesures ñu respecté ko ñu ngi koy respecté. Mhm. ñoom li ñu bëgg jël comme ay mesures ci seen bopp ñu ngi koy respecté. Mhm.